taxoon na moom mu naan ay doom pour xaru taxoon na mu naan ay doom pour xaru donc parce que euh, dañu toogoon ne Adja Diallo ma leeral rek bu fekkee ni fàttalikuwu leen Adja Bayor ak euh, Adja Diallo. leeralal ah leeralal rek. voilà Adja dafa waxoon euh, dañoo jékki-jékki woon ne Adja moo ne Adja Bayor dafa gaaw a yegg. mun a yàgg ci jigéen daal dafa gaaw a dafa gaaw a yëg boppam ñu ne Adja moo ko wax ah, ne Adja Bayor xam nga rek genre eh, nañu ma baala ci tur bi dafa gaaw a daanu ñu ne Adja moo ko wax waaw Adja gis après gis naa ko mu tontu sax mu ne la femme sénégalaise elle est pudique du wax mukk loolu. du toog mukk ne seq na ak diw bay xam ndax dafa gaaw a egg mhm. wala gaaw la egg franchement parler donc wax jooju moom kon moom fu mu jóge jaaxal na ko bu fekkee ne ay invention la ak lu mu mën di doon waxam la bu ko metti donc ñaawlu na ko jooylu na ko mais dafa tontu après daan ne bi ñu Adebayor bi ñu ko nettalee wax ji ne ko Adja Diallo moo wax loolu ne ko doo yàgg ci jigéen daf ne man du yàgg ci ay toilettes waaw Adebayor loolu la tontu mu ne ay toilettes jarto yàgg quoi toilette kenn du fa yàgg dangay dem xam nga rek mu nekkoon wax ju ñaawaa ah. euh, man mi koy nettali sax quand am naa gêne lu ñaaw diggante ajaa Diallo Ibou Touré nee na wax jooju noonu tontu Adebayor boobu Sénégalais yi ni ñu ko jëlee woon ak ni ñu ko doon partagé taxoon na ko moom mu naan ay doom pour xaru donc mu nekk loo xamante ne bi yàlla moo dogalul xaj na deewam waaye naanoon na ay doom pour xaru moom ajaa Diallo quand même dund na lu ne yàq nañu deram waxal nañ ko lu ñaaw lu ne sëyam ak Ibou Touré et eh, bi mu divorcé quand même bien yu ko Ibou Touré mayoon yëpp la nanguwaat mu nekk lu lu ñaaw loo xamante ne bi aussi franchement parler nee na sëy boobu quand def nañ ko ci lu ne dund na ci lu métti façon métti bu nekk et vraiment moom aussi euh, donc tey guerrière la ba ñu koy gis ba léegi muy survivre di am force courage à Adja Diallo mais quand dund na lu metti ci euh, boobu la yi nga xam ne bërki démb la ñu soog xam lu baree baree baree bari ci vie privée moom Adja jàll dama xamul yi wala Ngoné d'abord. <laughs> moom mi wax jigéen ñi lu tax ñuy def lool. Hmm. ah. ma comme yéen jigéen ñi lu tax ngeen di def lool. di def lan. ah ñëw di as jël sa bopp bazarde. yow waxal waxal non non loolu du jël sa bopp basaade xam nga lan laa lan laa ko gisee sax foofu ci bëgg sëy mhm. parce que li mu dund ak Ibou Touré man dama yaakaar ne bëgg sëy la mhm. mais dafa am euh, góor ñoo xam ne noonu lañ noonu la ñu mel du ñu du ñu yor jabar xam nga lan lañu lan la ñu mën gel la ñu mën waaye dañu tëlee jabar mën nañ la gis nga jekk rafet ñu jël la takk la mu jaral la ñu yëkkati ay millions yu bari jox la mhm. mais après duñ la téye parce que nu ñuy mujjee yow mooy maltraité la sonnal la indi la ay problème yoo xam ne ne di la dóor guddeeg bëccëg te jigéen yaakaar naa ne bis boo ko takkee sëy ak moom mu dem ba ëmb ba diis nga topp ci di ci wulli guddeeg bëccëg mhm. bis boo demee ba nga xam ne ne kii maa ko takkoon ci farata yàlla ak sunnas Muhammad dem naa ba nga xam ne déggooñu wala fa may gisee gisuma ko wala la ma yaakaaroon ci moom gisuma ko mhm. man pour man nga bàyyi ko mu dem moo gën grand monsieur bu toll ne Ibou Touré. Mhm. jàpp jabaram di wulli di dóor guddeeg bëccëg am na leen loo xam ne waru bu dee ajaa gisu woon loolu ci moom avant mu ciy dugg mm. ndax des fois li ngay gis ci sëy ba fekk feeñoon na ca ngoro ba daf mm. dafa am xale yoo xam ne bis boobu la am mm. dañuy bëgg di sëy ak yow nga leen di di leen wuli di leen maltraité loolu mooy seen vice dañuy bëgg ku leen di dóor di leen saaga di leen maltraité bu doon sax gisu woon ca ngoro ko ba mu nekk ba ànd moom takk ko mais kii nga xam ne moom mooy Ibou Touré macha allah adduna bi yëpp xam ko moom war na mën a am comportement bi nga xam ne war na ko mën a yore jigéen en tant que international bi mu doon en tant que pro yow footballeur bi mu doon deram war a tam mën a yàqu ci mi ngi dóor jigéen wala ñu koy toroxal su amee li nga xam ne gisoon na ko ci Adja Diallo ba mu bëgg ko ba yaakaar Adja ne soxna su baax la ba jël ko takk ko def ko biir këram nga la bu demee ba gis na leneen loo xam ne du ci moom na ko bàyyi mu dem moo gën nga téye nit ki di ko wulli takk jigéen tey am na ñu koy def dañ lay may waru sax bu ñu la fasee sax dañ lay laajaat waru gar ga waaye la nga jël ca jigéen nga est koo ko delloo tey fekk na ngay fanaanoog moom guddeeg bëccëg est-ce que yow tey jii la nga jël ca jigéen ba yaa xam ndawam la wala muy am ndaw wala mu amul ndaw est-ce que tey delloo nga ko mais dañ lay takk dóor la humilier la jël yow lépp li nga xam ne tey bi ñu la bëggee fase lépp loo xam ne mayoon nañ la ko dañ la koy nanguwaat lépp fase la fase bu ñaaw fase la fase bu ñàkk ker kersa am na góor yu bari loo xam ne wala war nañ ko mën a maytu mm-hmm. bu dee leneen li nag li nga xam ne digganteem ak Ababay Abe Bayor xaw ma footballeur boobu mm-hmm. moom fii ay rumeur du fi ñàkk ki ah. da ngay toog chaque jour que jëfee mooy li may wax rek la yàlla bindee ngay célébrité bindee àdduna xam la yaakaar naa ne boo defee fu ne fuñ la waxalee nga wër di weddi bu yàggee da ngay ba mel ne ii bu amul tomb mm-hmm. da ngay da ngay da ngay wanaasu lu ne nga jël ko lu ne nag di nga ko dégg danañ saaga sa yaay danañ saaga sa papa danañ la tam dëmb danañ la cagala danañ la lesbienne la lu la danañ la ko waxal mais nag yow mi nga xam ne yow la ñuy waxal yaay am sa maturité am sa fullaak fayda ba nga xam ne gaalu xaj buñ lay sédd buñ la fa mu sa fekk mm-hmm. ndax bu ñu nee ay diw nee na diw day gaaw a daano gaawuta daano ak yooyu yooyu dafa nekk ay wax yoo xam ne wax yu ñàkk kessa la nga xam ne dañuy ànd ak góor wala ñu nekk ak góor wala ñuy sëy nit ki ba bàyyi bu ñu la tasee yow wala ñuy faratoog yow génn di la wili naan diw kat euh, affaire ba nii la bindoo diw kat affaire am ba ne na ci góor am na ci jigéen am na ci góor am na ci jigéen parce que am na jigéen ñoo xam ne noonu la ñuy def dañuy nekk ak góor farantoog yow wala ñu nekk ak jëg sëy nit ki ba naan dama koo bàyyi tas naa lu tax nga ne ay bàyyi ma birib dëpp la yër daanu wala birib dëpp la wala nangam nangam pati ci patlaal ñii sàkkare bi nii la mel wala ne la la mel dafa rafetul gis nga sëy sutura la ay ñaan nit waaye day ñette bu leen yàlla boolee bis bu ñu demee bay tas buñ demee bay séparé si na rafet na ku nekk toog jàpp ñàmbaram ñu tàggoo ci tàggoo bu rafet te bañ a bàyyi nag bu ñu àndeek nit di génnante wala ngeen di sëyante boo leen génnee ku ne di wili pande sa morom dafa am yenn yoo xam ne dafa ñaaw loolu bëri na ci nag sénégalais de sama far bi ma doon génnal nangam ak nangam nee la mel wala ne la la mel mais nag sénégal dañ lay sosal di la créer di la waxal wax yoo xam ne ne yow doo yëg loo tin mm-hmm. waaw siw nag moo mel noonu siw du jàmmi borom te fu yow a yegg du mën a mënu faa yegg mm-hmm. loolu kase la jërëjëf Ngoné merci Djimbori xam nga euh, Bamba. da wax ni Adja comme bi maanaam boobu ba léegi. ñëpp a ngi coow émission Adja Diallo bi. mais émission bi li muy neex neex dafa am lu ko yàq. mooy mooy Adja daf leen wax ni dama bëggoon a xaru. te waxu leen lu tax muy xaru. wax nañu kay lan la wax. Ah, wax ji ñu ko doon waxal ci Adama Bayor. déedéet. wax ji tontu bi. non wax ji xam nga wax. wax comme comme paaka la mel. Ah. léegi fan la la jam xoola wax est-ce waxin la wax day jam ci bopp day jam ci tànk day jam ci dënn day jam ci we léegi bu mu nee euh, euh, man dama bëggoon xaru léegi nga ne ko wax jooju fan la la tuuse ba nga bëgg a xaru hmm. moo doon fond wax bi wax bi dama des wax bi moo des. Yumbori wax bi ci xol bi la ko yàq. non danga may déglu rek non dama lay wax rek. wax bi lu mu des. non xaaral tuuti ma wala. dara lu des nag. non danga may danga may déglu rek. li mu dund kii li mu dund dafa métti rek. noo non xaaral pare nga déglu ma rek ma wax la. <laughs> xam lu ma la wax xam nga tey. Hmm. li nga dund bu méttee. yow yaa ko mettil parce que yaa ko indi ci ñun. parce que ñun tamit am nañ luñ la waxul. du dëgg xoola addina est-ce que xam nga ku la njëkk a yeewu ne la sàngal sa taat la. léegi xam nga la pet ka yow xamoo léegi ma wax la benn affaire léegi ma tekkil la wax bi nit lépp lu ko lépp lu xam ne nii du dëgg yaa ngi dégg du jot du jote xol bay xaru loolu laa lay wax nii pour nga dégg ko bu baax way xoola am na lu xam ne wax naa la fii ba tàyyi ne la dafa am wax buy def effet am wax bu dul def effet dëgg la léegi wax wax bi mun naa laa saaga ndey léegi nga xeex ak man ngoone saaga la ndey nga bàyyi mu dem. dëgg léegi lan moo tax nga xeex sama saaga ndey bàyyi saaga ndeyu ngoone. c'est vrai c'est vrai ngi mel ni jëmboori bu ñu ñëwoon ne la yow da ngay màndi rek bu la wax bi mettiwul bon euh, bu la bu fekkee doo màndi du la def dara quoi. waaw parce que euh, ñoom émission yi ñuy def dañ siy waxaale seen bopp te sénégalais yi duñ ko dégg yàquma der nag man nag wax dëgg yàlla damay dégg wax ba sama yax yi. Mm. yaa ngi dégg. Mm. tey lu la tax a xaru lan ba pare benn lay pàq la te yéen a ngi def erreur Adja Diallo moo génn wax Ibou ture est-ce que Ibou génn na. non non tey xoola bi ñu gisantee ñoom ñaar saagante wu nday ànd kenn ku nekk dafa am wax boo waxoon sa morom ba mu neex sa moroom ngeen ànd. Mhm. léegi kan ci ñoom ñaar moo changé xam nga ko am na wala amul ba pare ñoom. Euh, ñu xaw a siiw ñi ba nga xam ne dañoo siiwoon dem ba siiwatuñu chaque jour bu ñu bëggaatee bokk seen vie privée la ñuy lanjang def ko ni basan nag ñëpp tëdd di nelaw ñii di féexlu ñii di doxantu ci basan bi ñii di ci sotti ndox xoola ma wax la dara nit ki est-ce que xam nga lan mooy nit xam nga luy nit xam nga ko vie privée mooy nit su xasee génn ci yow yow jeex na nekkatoo nit Jimbori Jimbori célébrité. waa xaara xaar non xaara mm, xoola. célébrité waaw da nga may da am may déglu amoo vie privée. Hmm? amoo vie privée. déggoo li ma la wax man du ma célébrité de. dama ne célébrité non kaay ma wax la adduna ñoo lay déglu. mais xam naa hmm, loolu lépp may ma may ma tuuti ma wax la. Hmm. xoola Adja Diallo actuellement nii nii nii yow sax yaa ko gën a nekk. non da waaye dégg xoola man da may déglu rek ma waxtaan ah, ak yow. maa lay déglu yàlla moo njëkk wax ni sama nitu tey gàcceel na sama nitu démb du miis la miis miis la. ah tontu ma du miis la. dëgg la léegi Bamba ana ñi mu doon miisa ndool du ñu ngi fi. ñu ngi fi de xoola bi muy jël pee am na ku jëloon deux. waa tuuti ma wax la rek. Mhm. wala wala demal ba pare demal ba pare <laughs> demal. non non non. demal. non non non. jox jarante la. <laughs> wa waa aj non damay wax rek pour beneen yoon kuy génnati. non dama xam ne rek. Adja waa da nga laaj ñi mu miisandool mais Adja. waaw ñi mu bokk génération moom rek nga ciy dégg. moom mm-hmm. moom moo existé sax nag parce que. Mm-hmm. au moins mu ngi faay ba tey. Mm-hmm. mu ngi xeex ba tey. Euh, di exister ba léegi nekk animatrice donc. Mhm. Euh, Adja xanaa xamoon ne Djimbory li ñu ko fi waxal lépp ku ñu ko waxaloon. waa waa léegi kaay ma wax la. léegi li ñu ko waxal bëri na de. voilà waa léegi xam nga li ñu ko waxal bëri na. dafa dëgër de non waxuma ne Adja Diallo. même Ibou Ibou sax génnul wax. moom génnul wax mais li ñu teg suñu bët mooy dóor yi. non xaaral xaaral ma yegg xaw lu mu koy mënta def mais dóor yi déglu leen ma ma wax mu jeex après ngeen wax yaa ngi dégg. léegi man xam nga lu ma bëgg xam nga lu ma bëgg. yaa ngi dégg. non yow soo góor comme ko dagg. non non déedéet da nga non ko jox mu wax ba pare man damay wax. commissaire Feeling Dakar demal. non déedéet. monsieur le commissaire. non da nga may déglu. ko joxee mu wax est-ce que dagg naa ko. non non dagguma leen de. waaw mais war a daggante nag. bu fekkee non mais dagguloo ko de dagguloo lan moo tax sama wax am dagg. parce que wax bi may wax dafa def effet ci yow. Ah, wala du noonu. <laughs> dafa def effet. wala du noonu man damay wax ni nit ki ci bopp xam nga sëy sëy bokkul ba tey ak ak millier soo biis sëy affaire yàlla la ngóone loolu mooy vie privée gis bu fekkente ni ay estaar ak affaire yooyu lu fi waay mën a ñoddi ñoom meer ci nelaam boobu ba tey ñu ngi fi kuy woy ñoo la dàq woy ba tey waykat yi ñoo ci dàq way te meer yooyu xamoo ci ñoom dara lu dul li ci kaw lu rafet rek am na wala amut mhm. tey soit boo wili pandee sa jëkkër toj nga sa gàllaaju doom waxa rek ajaa nag jigéen la jigéen dañ kaa war a yor jigéen du yor boppam jigéen du yilif boppam li mu defoon pour dem sëyi ci ibi Ibou Touré c'est bon Bamba mhm. mais la fait que nga ni dama ëmb kooku téema si ëmb bi du duma ma yaa ngi dégg léegi duma bi danga war a wax ni lii laa def mu duma ma waxu la lu mu def de ba mu duma ko. bu la nettalee duma bi. léegi Ado Bayo nee na dañoo dem ne ko diw nee na yow da ngay teel a daanu mu ne duma ma yàgg si toilette yaa ngi dégg est-ce que bu ñu demoon ne ko ngóone nee na doo yàgg si doo yàgg ci jigéen est-ce que dina est-ce que dalay tontu wala du la tontu yow laay wax. <laughs> non war nga si xam dara parce que Ado Bayo xaar ma wax la Ado Bayo xamu la. du dëgg léegi lan moo tax ñu ne ko diw rek mu wax loolu léegi li tax mu wax wax boobu loolu lañ soxla woon mu ne lii la xoolal bëgg a xaroog toog di jooyat di nettali sa bopp man de man ah man sama yoon ne aussi dañ ma laaj rek damay analyser yaa ngi dégg comprendre nga li ma la wax mm-hmm. xoola la fait yow lu tax moom ñu wax ko loolu te defe naa euh, ngasum ñaam bi boo demee bañ la ci yoori buum kon reen bi da ko dépassé ana yow ana man da nga maa romb diwa ma ko présenté mu nuyu ma ngeen yam ci nuyoo est-ce dina dem ba jox jolante boobu war ci mën a am. Mm. lu dëgg gis nga animatrice ak anim xam nga tey booy seet Adja nee nga animatrice la du noonu ah? mm. bi muy ñëw si ñun si Sénégal lan lan lañ ko njëkk a xamee. Mm-hmm. balaa muy nekk animatrice. Mm. lan la waxal. yéen ñii yéen ay animateur def ko liggéey. am na ñoo xam ne dañu naan Jimbori siiw na rek rajo bi nii ngay poussé tegal cassette muy wax rek gars yi naan diw la yow kaay déglu ko. mais quand même am na ñu nekk animateur pour exister aussi. waaw waaw mais dama ni dafa am ñu ñoo xam ne seen liggéey la carrément. Mhm. boo ma yokkaloon wax bi nii man dama lay déglu di déglu keneen ak keneen. xoola mhm. barke rasulaay boo ma yóbbu woon boo maytuwul xaw ma nu may tegee cassette mais la fait que Jimbori la ñëpp naan kaay déglu Jimbori yow non non bu ñu jaxasee. yaa ngi dégg diw am na fi lii am na fi laa gisal réew tubaab yi xam nga lu luñ ma neexee génération par génération la ñuy def soo ñëwee nga présenté sa miis miis yi jeex na taaw miis boobu jeex na nga ànd ak ñoo ñu nekk ci leneen. mais fii rek ngay gis ko xam ni day nekk fecckat wala mu nekk waykat wala dara continuer ba tey te xoola tànk seq tànk fecc sax mënatu ko. d'accord. défilé défilé ngóone boo ko solee yére yére bu gën a rafet boo ko solelee day gën a ñaaw. yaa ngi dégg mais mu continuer mel ni moom ni mu meloon da koo mel ba léegi lëjal réew mi lii lan la waxa rek ajaa ngi jongoma ba tey non waxee kii ba tey déggoo fi may waxee man mu jongama ak jongamewul man sama yoon ci gaana gu dee du sang duma ma suuli jaalo ju may mbokkam wax ji ñu wax wax ji si wax ji laa wax man ci wax ji waxuma ajaa de ci wax ji mu ji ñu ñëw wax ñu ko xam nga lan la diine dafa am ñu ko doon xeex fii xanaa am la réew mi dafa am benn benn con benn contexte bu mag ñi tënkoon réew mi xam nga mooy lan wax yoo xam ne bu naree dépassé dañ lay wax ne yemal fii xoola nit ki foo demul foo foo foo foo demul est-ce que dinañ la fa tudd waxal man bu doon maay moom damay suturaal Ibou Touré comme am nañ ñaari doom am na wala amut Ibou tamit fu mu nii wax ji mën naa bañ a jeex jigéenu Ibou wala Ibou bu génnaatee wax ñii nga xam ni amuñu lu ñu kaa amuñu lu ñu publier si la ñuy nekk am ko Abdou Touré am ko Adja Diallo ñun dundu gu seer gi est que warul nekk suñu Adja Diallo ak Ado Bayo werante. <laughs> jërëjëf Jimbori. ñàkk a gi. alors rek ak ñii ñuy jàpp tëj leen ci kaso yi. est warul nekk suñu Ado Bayo suñu kii. ñàkk a rek waxa rek. ñëw. non xaaral da ñëw. non man Fallou Seck dina ma jox. solu yaa ngi dégg xoola da ngay ñëw indil ñu xoola dañuy toll ci is sol tubéy de nga indil ñu histoire ngeen ñu def taati neen di la lu mm-hmm. loolu mooy senegal de <laughs> jaajëf mais mais côté boobu mu waxee Adja Diallo côté boobu mu waxee dóor yi mu yi ko Ibou Touré dóor moo nekkul yoon mm. déedéet du dëgg du dëgg même ëmb na ba diis mais dóor yi moom ñëpp feeñ na na Adja Diallo kanamam gi ni mu meloon ñëpp gis nañ ko. waaye dama ne Adja bi mu ne la day xaru tamit xoola boo ko gisee ni mu mel. Mm. problème boo ko boo ko dee indi tay est-ce que xam nga lu tax ngay dem police di nettali ba mu yàgg rek ñu dóor la mbéj <laughs> xam nga lu tax lool. ne la mbéj fuuf wala nga ñëw di wax rek gendarme bi mer gis boppam wala police bi ne la yow dangaa ngaa jàppe fii marché ñoom dañoo jàng loolu gis nga boo xoolee Adja Diallo physiquement. Mm-hmm. daray problème feeñul ci yaram. mais loolu yàgg na. waaye eh, eh xawla kaa ma wax la da xoola kaa yooyu ñun. kaawuñu kaawuñu tey. <laughs> ñun ma wax la dara. Oh, kaaw dafa garaaw ma wax la kaawuñu tey. kaa boobu fekk nañu fi. loolu xanaa am loolu rafetul pour jigéen nga toog di wax diw la def na ko lii diw def na ko lee kenn waru koo waxal ay ado bayo affaire ba pare Adja suñu or la ñun. parce que dafa am lu mu représenté ci dëkk bi. mais Adja est-ce que séesam dem na toog ci sées ba. doo am sées bu ñuul nag jóg ci dem toog ci sées yu xonq yi ñu naa la pourtant sées bi jàpp na la de loolu naa fekk la waxal Adja mu dem toog ci séesam rek. parce que tey ku toog présenter wu ba Sénégal ba Sénégal daj nga gën cee rafet ñu waroon laa jëndee xaalis bu bari nga am ku ku xam ni dafa war a jël tuñ teg ci lex di ci teg kurpañ. Mm-hmm. ak ni mu mel. xoola ajaa xoola ajaa ni mu rafetee ah, xoolal ni mu liisee xoola tuñ yi xool lépp yaa ngi dégg xoola xoola bamba eh, bamba wuy ma bamba wuy ma yàlla xel dee bamba eh. bamba wuy ma tegoo ci lii di ci teg lii waxal rek xoola ma wax la dara kaña est xam nga kenn gëñu ko juddu. yaay kaña bàyyi kaña mais fu ko fu ko baykat seen yéen a ko deyam ndax ji ko xam la bu ñu sonal. yaa ngi sori ay daal baax ma ne la ah. ma la bàyyi jàmbur laa la wax. Ah, a bañ nag moom ngay def. man xasuma de wax ji laa wax. waaw ñun tamit ñun tamit wax ji la wax ak lu ñu dégg. bul wax ah. ko dara. li ñu wax ci laa toom. dëgg la de li nga wax kay waxoo dara yow. wax non <laughs> mais xoola kaa ma wax la dara xoola boo weddee nga indi fii nit ko xam ne dafa wax loolu ma jàkkaar moom mm. na wax loolu ma ma ñu waxtaan man ak moom ah, baax na wala du noonu dañ dem ci feneen dara de ah? ci beneen cas dóor yi mu koy dóor lu muy mënta doon waroo koo dóor boo gisul ci moom la neex eh, waa dóor yi da nga ko fekkee dóor yi sénégalais yëpp ko yëg waaw waaw ba tey jëkkëram génnul weddi ne dóoru parce kenn kee wax ah? kenn ki moo wax waaw mais li tax keneen ki génnul bu ñu la sosalee sosal gu mel ne dóor nga sa jabar war nga mën a génn démentir Sénégal yëpp